mbërëy kese tub taxaaram tey defar ak a diw ku ñëw joxe lëf mu dal lay yóbbu yóbbu bu bir moo tax ma naa la nga bëri mbër mbaa nga ñëpp ko ca ñëpp koo yóbbu wër bu ñu koy yóbbaale yóbbu la far sëriñ bi yow ki ni may loo xam ni kenn xamu ko saw tagg war na ma war goo xam ni kenn xamu ko dinaa jóg ca tagg la ngeel ak gor su xam ka ko may muy faggiwul waa de yow saw tagg kenn mënu ko yaa jiitu gaaya fi daawar gaynde yee ka waxat garal yu ngir danga koo mën yow te naa matu ko wutoo ku lay gis wutoo aw tur wutoo daraja wutoo lu dul yàlla yow mii rekk yaa bàyyiku bul gëm ku dul topp yow kii nit te dëgg gisal rab waa ngi naaw ak a jéggi gar te kenn gëmu ko kuy soppi sooti wurus say dox di mooy ndigali kookaa di dëgg dëgg yi seytaane yow sori ko seytaane day naaw a kay dem màkk añ niru na bu dellu si mooy ndigal kii tey ku xam wattu ko karaama moo di bàyyin mooy lii la Ahmadu wax kuy def karaama bu dul gii foo ko gis mooy ko man topp sunu waaj moo fiy def karaama yi mat du mooy du moylu te sunu waaj yi ku xam jude ko day topp yàlla te ku gis topp loola ko nag ku fi gëlam ak alaajum ngir ma jëm wuti ko moo yegg yeggale ay gaayam ba kenn desul buy kër bu moo mata jox ak jur jógal joxe ko xabal sa jur jule ak mboolem alal ji nga am te fekk sàmm bu dee fullal nga dénk ko ko moo gën di sàggan banaa leen kat yi mel na ma tey tey sàmmul may muy kat dëgg nag jëru ko xamal ni silmaxa kuy sàmmi nagam du jofal foo fekk silmaxa kuy sàmmi nagam tere ko bàyyil palamtu bi jàppal tum bi jox ka ko xam mu wan la ngir ni te sew naa kaw ba kenn gisu ko jamaa ngi nekk fi sa gët waande gumba du gis amaana ngay wër wër bay dee te doo gindiku tey boo bëggee ku la saytul yow sa mbir bàyyikul ku fam mbiram saytu deeful deful bul bàyyi ko déggal li may wax te bu doyloo sa fóore gi kët saytaane fóore la wan ndax teena koo alaku te doon te xam-xam dafay tax kenn gën bana gën ngir yàlla jiital na koy ab topp rëbb na ko malaaka moo mën a jëf day jàq ngir la ko dal te xej gi dëgg la wan bii sa bii sang la safu ko malaaka moo mën a gis day jàq ngir la ko dal te xej gi dëgg la wan bii sang la safu ko wax naa li muy wax te wax jii doy na waaju xamul ku dégg boppam ku déggul mën na fab jëfe ko jox naa la yow ban ba saa ngir yàlla teere na ko jox naa la gaa yi ma jox teenu ngirit tee ko jox naa la yow ban ba saa ngir yàlla teere na ko jox naa la gaa yi ma jox teenu ngirit tee ko tajal mu kii si bàmmeel ak kii si bépp pour barab te lépp lëf lu dul may say ngërëm sabu ko fa du bu rafet ak jëf ji sell ji sax te may nu wër sa yére yoo xam ni koy bëgg ko ak fan yu gudd yu ànd ak doylu doylu gu mag yelis ko dum yow ba dum wax kenn lii indi ko ak gaa yu am ngor yu dul yokkee ka dox di tawat ak jaglu jaglu bu dul dog ak nawet yu nangu ak gëm juróom ak rafet njort ak taqoo ka ndigal ak at mu jot sunu mbay mag jëm mu bii bërigo te duñ ko fooyee ka waxtaanee ka dox di damoo dul def lu dul peese fab jox ndaw mu jox ci la ko lii moo di sunu yéene tey ngaa wax ni yàlla defal yaa ngi nii bu la soobee yàlla ñu defi ko tegal mu ay gàcce faw ak ay balaa ki naqar ak i xuloo ak i nax nax buñ ko gis tey ko mangal ma jàmm judul tàggoo fi ak ma nati sunu dund ak sunu dee buñ jëmm war gariku jullit ka def asamaaw ak ajjanaa ki arab jox naa ko yenneen ba ak koo xam ni topp na ko na jébbaloon yàlla ay yoneen ba seeni bakkan ak seeni jur raw leneen ñàkk ak lu dee fi ragal moo def lu wér lu rafet moo am lu wér lu rafet moo nangu nangu nawet moo war saxaari ndigal ndigal gu wér rekk wér moo am njariñ ku ko def raw lépp loo bañ te jot loo bëgg jag te jagal ñu nee ngi basulu ñu nee ngi waafu ñu wari fab muur nga fab dugg gaalu cant benn faxal ñu nee ngi rootaani ñu ngi jaj ñu di nasal mënu ko yafaf soo bu géeju njëg barab bi labal ñu leen di jàng aroob ak aajaroo masu na mënu ko yafaf xëy ni rappal yàlla jàpp ko ba ñu leen di bay ñu ngi jaayaatoo ka sàkku alal mënu ko yafay kaawu jinni jinni ak falifal ñu leen di tàbbi bu ñee kay laaj yoon a fisal mënu ko yafaf ñu ca dëkku ndam ba fipp fetal dem lépp faf la rey léppal ñett fenkee ca kaw raw ci ëli kem seeni kem xëy njooju leenu dawal kalanda bay du murit du pang moo di kafar afub murit te matul ab pang tey la ko dal mu nekk yàlla na mu lii muy saw muy bu rafet tabarke dal ñu ci kaw boppal lu dal suñu xel wa am dakuf dex na muy ñaanee ci ndox ak wut ba jant fenkee la ñuy muy tag lu dee fi ragal mbir yàlla jub fexe yàlla jub mbay yàlla jub xool te dafay dal ñëpp am ci tuwaa ko yiw wala fag fëlëg maa ak tubaa ba ca tilit ñu ñii ci yàlla ñu jub juboo jàmmoo ne law jàmm ak jub ak dajje ci yàlla ñu bokk sax ci magat ci ndaw ñii gën ci mag ñoo gën ci ndaw ndam yàlla sax santante sax diramante sax ay yëpp dee baatam ba dog saytaane daw kon yàlla kay tuub ñu moyam rek ci moyam tamit bonum mooy ci jubam daw gàcce raw ku ne yàlla bi ku ne yàlla bi ngir gudd fan bari képp way am bopp dox ne ca kaw ca kaw ku ne yàlla wër mboolem moroomam ñëpp na ñun doom ba daa wërandi bi tey yokkoo ko law ku ne yàlla tii sa njëkk jiyee na xaram wajee dootam gëjee tàkkat mu dégg tentam gëñoo ku ne yàlla raw lu mu bëgg raw jot lépp na lu mu bëgg jot ànd ak ngërëm bañ a fee taxaw te li yàlla ci ñu cant mooy njëriñu mu wër ku ko ci lorom ak jàmm ci biir nee ko daw kon yàlla wàcc ci woon war njëriñ mu njëriñ war barke sax ci jaamu jàmm ngay jëlaw kon yàlla am tedd xol ak tedd yaram lépp mu yéen ñuy yokk nag suturaa ko yow sama yël gi woon buy màggati wéree kay labal lépp mu wëyit yàllaa ko ëppal yërmandeem bu ma dee labal mboolem ñanay tëj nay ba tey yàllaa labal ta boofu feeroo ko tabeem bu ma dee labal bépp ragal yëpp ci ragal ñoom naa kanut xarekat bu nekk ak ab xareem xam naa sama ñu teg ci ndey jooru ka gën wata jëm sa xaara kuloote jëm mbaam ak gëleem te naa samay mbir ci loxoom ak lépp lëf lu ma am bu dee yóbboo ka dem du ko dox di leem bu yóbbu nit day jàpp jëmmam ak ñëfam dugaleen ngërëm di yóbboo ko yiw moo mën di jéem buy def lëf ak buy dund lëf nit jënt lay ñun rekk ci sentam te ñal ko ci ak poyam ñal na ngelag yóbbal ci niñ tey kërtin yi te yëkkal ak mbooloo mu jub mu ko nekk yéen sama manque gii du matee di sant ak ñaan a mat foo gis ku mat dafa daa dagaan ak sant ween yàllaa yéen xañ ñëpp man tabi am njëriñ nguuram ga yàlla na ko jàpp jébbal moo kireem moo man kasañ moo xam ci am moo gën ñu gën suturaama tax laaxam bi sax ku mu nag cereem la mu daa joxub jaamam bu gën bépp kanam la mu koy dagaanaka ci sabeema yërmandeem la mu daa joxub jaamam mu gën bépp kanam la mu koy dagaanaka ci sabeema yërmandeem yaa xam te noo ngi fi yow yaa man te noo ngi fi yow yaa gën te noo ngi fi yow yaa dàq ak gën a suuf yaa am te noo ngi fi yow yaa man te noo ngi fi yow yaa gën te noo ngi fi yow yaa dàq ak gën a fu ndawal ma dañ ñëpp lay ngéejoo ko yéema kanaw te ngéejoo kenn yéemoo kenn boole ñu ñu ñëpp boole ñu ñu fag jàmm teg ñu ci say ñu fag ci say la ku ñuy bañ nee ko rëkk ci suuf noo ngoogu fawwu sa ñëpp ak lépp ngoogu ku ñuy taxee tegus coono teg ko yet mu daanu fi suuf loo atte lëf du ko te am loo dogal mu dogit attee ndam ci ñu nañ ndég yow te far mi rusoo nga sedd xol lépp biir ak bii ci far koo dogal ci nun sa jox nu ko lépp ak ñëpp lakk wu duuf dogal mu woggu mu sedd xol réy te jaxas reerum ngërëm jox nu muy déglee ka musula ci xiif musal munum ci lu dul yow muy musal nu ci yow muy ak te wu lee ngay rottee fu nekk ca keroog roofal sa bopp ci ñun faw ak sa yi ñuy tegul roppeeti mu ko ci ñun faw ñu musal mu ci loo roofal sëriñ ban ba ak yeneen ba faww ci ñun moo xal ci ñun bu rafet yi yaari jeex ca suuf rafal ci ñun barke ak kër bay si ak këngaram ñu dul dañe ñu dàqal tab bi àjjana suuf seytaana mer nag ba jompal matt nekk ci wér yàllaa ko matt mu yor boomam bu doo xam a wér mat mat bi dootuñu tàggoo dootu seet deetu wér bii nattu yàlla nanu mooy ñun ñëpp mooy gu mu wér xolam bu feddati yaakaaram ja tas na wesar yaakaari gaa ya mu àndal yëpp tas na wesar jiwaaya bon bon de xees ak gàcce ay wi ko dal ñun ñëpp yal na mu teggee teggi teggi ko bir mënoon yàlla te bañ yoneen bu tedd ba nag mu xërrëfee lu jëgal ci àll moo ba nu mbir jibril a kurfan ko yow mu wan ko fëggu ko ndañ xamat ko mbëgg ko ko teg ko njur ci bopp mu ser ba mag ku wéq ko wéqu mbër mu sëppu jalañ bii soree ko ayam ni mucc kay sor war soree ko fi fépp jañ koo jañ ba dootu fi jëm nga warul faw yor tawéef mbég soonu jagle si wër sañ yëngu taw féexaku bu wër mu kàppaku yiw mu fal na fexaku pour doo si ndax mu sawar xetamu ga yàlla na ñu bon nañu nekk na mu ko amee dëgg ba sopp yàlla ca feelu xol gu sell gu tar xetam nga yàlla na ñu sell ak jàmm jópp ci ñun ñu bokk benn ñu wël di fatt lépp lu war fajkat bi yàlla na fajal mbooloo mi seeni tawat fajal mu rag bi yaram ak rag gi xol ba ñu wér buurub arab def nar biy bind faw ci wóor ba du dafa dundama wóoram ci àjjana goor yal naa ne dakk ci géeju jub bi fee yaka nuur ba dugg taw wag tamit ju géeji àjjana nuur yal naa defut santkat buy sant saa su ne buur ba du dafa cantama wóoram ci àjjana goor yal naa defut santkat buy sant saa su ne buur ba du dafa cantama wóoram ci àjjana goor yal naa defut toppkat buy topp saa su ne buur ba dugg dafa toppama nguuram ci àjjana goor yal naa dugal jib gawar bu war ci sàllam suur ba dugg faw wa ku sàllam ajjanaama ci joor yal naa di kuy bëgga kay fam mbég ba dugg ci ndég pour ba usu biir xol ba far suuxal galaasa ki yuur yal naa di dàmm bu jam mboolem rabam wa ko sab ba noppi jam tàjjanee fir dëw si ndam ba fi jóor yal naa di kuy gonta kay xëy tey rañaana kuy ba far ñu jol lay ca fir dëw see këree bari muur yanaa di ku yaramam neex ak xolam mu sawar wayaf te dugg ngërëm fër daw si jëf jëfi góor la dee si bañ yàlla nuy teggee te muy barbanum dugg ak suñu mu ci un fër daw si safrawu toor te yàlla na nuy sax ci gépp cant nag barban yi dugg ak suñu cant nuy fër daw si dàmb sa biir buurub arab yàlla def xar baaxi cant yu rëy ci nuy te jox nu këram jine gaa yi tëdd ya góor ñëpp yàlla nañu dégg cant teg te suñuy jëfee suñuy yoxal mu ci njëkk cant saw gërëm ku nekk nay dégg yëpp cant saw ak a for di teg bëtam ba ci njëg moo xam ni am na xorom na nopp yëpp ñu del nañ njëg ñu teg suñuy bët ci ñëpp njëg faw sedd xol te neexu yaram na yëpp fan gudd bépp xol mi ñuy yaram ñu nekk wér ku ne réccu moo ñu faral ko yaram li ñëpp lor sori ñëpp jaamu sell rafet ñu sant jëf dina si ñu wan waa ji mooy futuram la ñëpp am dugu bëgg jàmm ak aree na ko fëpp ñu wan lu nit ñëpp may leenu jiboo ci dërëm lu ñëpp yeesati pour nag ñëpp tàggatu yi ñu jàpp ndal ku ne jàmm ak jaamu dàq loram na ñëpp set ci ñu leerul nit ci seet gu rafet ku nekk sax ci lu leer ak ndam ñu saytu mbiram na ñëpp bokk ci xootiw ay te sañ ci biir ci yiw ku nekk gërëm gëm yàlla sax ci ngërëm na ñëpp yàlla nam dëkk ak jàmm dëkk ci gëm te sax ci lii yoo ngëgum yàlla ak dàkk meram seytaane yàlla na mu koy daw saa su nekk ak raw ñu mun ko taw wu ci wun ñuy daw ba dee ni ngaram suñuy yoxoo ngi ñu tallal teg ci yow mayekat gërëm ñu lew dom mu yoo def barke ak sa ngërëm yaram ñi sangi way wooma ñu fàttaliku leen miskin mu nekk fi seenu wet te fàttewu leen yaram ñi sangi way wooma ñu fàttaliku leen miskin mu nekk fi seenu wet te fàttewu leen ñeenti junni yéen ak ñetti junni ñi ak téeméeri junni ñi laa wax ak ñi topp ci yéen ak xet yi ñi ci suuf ak xet yéen a ca kaw maa ngi di sàkku ci yéen wallu wallu si leen ñu leen a ñëw ku ne jàpp na sarax na ko man ndax yàlla dolleeti leen ak lëf te yokkati leen yéenay kuréel yañu fal yéenay kuréel yañu furi yéenay ña xam gërëmal buuru araf rusu leen yéenay ña muy rusa xañ ngir yéen a koy rusa muy koo rus mu rus la mi dee wër néew di ñiiti ni leen kañ rusab guraaya mu rus faw yàlla ñu jaam bu wër rus lu tam mootim bu wër mu ci leen te yàlla ñuy am lu ñuy ngeejoo kataamutin moo am ko jàmm ba bu taw féexal ngërëm mu lare leen ñu jox nu ñaaru dërëm ñu jox nu fukk dërëm ñu jox nu ay junni ñee naatal mu laf taw leen ñee far su ñu mooy mu far ñee dolli may bu mu am ñee far ñu ñee fu ñu ñee leeral mu sikku nu leen ñee far nu tabbal ca féeg yàlla jox nu lu gën ay junni ñee jox nu jàmm ak yépp ñun mu jaleen mun naa ci yàlla ak yonent sama ñu ne man yal naa ni dàkk ci ñoom ak yàlla dimbali leen yal naa farub dog bu rus loo dog bu nit mu safar ci yàlla ak ci ñu naa jaamal ñu fàttaliku leen bu ne yow ma jëg yéleen a fi def ndax mu raw mboolem lu bon jot yëpp ñu am àjjana yonent ne waxambaane tey waxam nii am nag ragal yàlla ko yu fase àdduna jangante mooy am dund sax moo xam ni day wéccoo ka jooy bu may banee saa kii sana jangante mooy ku borom ma xëjal nga faral bépp lu may am muy sant naa ka ñu fal mana jallante may ab nar bu yoon na nga jëpp jëpp ak jëpp jàmb gud bu nee saa ëpp na jallante may ab nar bu ñu feral xolam dalawam xelam bu ñëw mu naa ndég wàcc na jallante may kañ teel a xëy ñëpp a ñu naa jum xëy bi ñu ma ko ñëwee te naa maa sam sama yàllante may kañ teel a xëy ñëpp ñu naa jum xëy bi ñu ma ko ñëwee te naa maa sam sama yàllante may kuñ fa dugal gaalum dugal mun si di ndaw tam ñëbb mag ñu ni soppi na yàllante may kuñ fenkarit jënt mbégam yoo xam ne dee fuñ jëgg bis ba ñu maa sama yàllante may kuñ dindalit faw xolam naatal këram ñu raw ne faalante na yàllante may nar bu ñu jëm rafetal mbiram tey gudd fan ànd ak jëmum dem àjjana yàllante may nar bu ñu jëm rafetal mbiram tey gudd fan ànd ak jëmum dem àjjana gëneeli addina ak alaaxiraa ngi fi ñëw ku bëgg jiitu moroomum tee mu fekk fi la gëneeli addina ak alaaxiraa ngi fi ñëw ku bëgg jiitu moroomum tee mu fekk fi la kuy kër këreeka wutu baaxit ci waaju la muy ëmpin la muy kër këreeka yi wut pëniñ ci mu la yaa woote ngir yàlla mi ñoo ngi ku gantu torox te yëggati doxalam seddit pëniñ ci mu la wootee la woote ku dul dem naari mujj yi ñu ba mel ni waa ndekay dem naari bi ñu mu la bayil ka jëm naari muy tax tax lu naa dooma gis sëriñ ba nga la mu xam-xam naa ko ngir gëmu la te yow ku lay weddi tey sax ak ka lay gëm a yem taneeku waa penku ak waa soow topp na la ko def ba jekki banaa man day siyaare jiwul waroonu juddoo ki xam-xam jóg siyaare si la te gërëm yaa ngi ci yow waa doola yaa ngi ci yow di mokk kay wut ngërëm kuy def ba mokkuu la waroomi daaraa la fi raamal ak ay taxanal sa diine yër nekk koy nim kaari te musufu la yaa weesu ay lor te weesu yi tuuma weesu lu bon yëgal ni yàlla mi ngay gondoo ka xëy na ku la ku nekk boole na yàllaa kas nga fit nare yow yow yàlla rekk nga yoot moo tax ba kenn jotu la di góor kii addunaa kii ngon na la ñi malak faax ak alarba yi lay yëf yaa ko dindi wala yaa boole guddee ci bëccëg yow ni yàlla fabal lii tax mu jox la nga neenam ñépp nag tegala yaa bay te bay loonu toolu bi yàlla yaa ko setal toolam bi sant na waa toolam bi sant na la yow rekk a tàggale toolam bee ki boo yekki bi jaaraama may nga nu ndam am ndam ci sa ndugu la defar nga mbokk defar jaambur defar nga murit defar nga ab doxandee nit mbàkke yow foofu la yaa jàll jàlle damay mbooloo yi seeni ñu def te jàpp aajoo ki lor faj kuy tawat gisu la doo lor te xam ni ku lay lor yow nga may koo dërëm jéggal ko ngir yàlla tey def def lu ay defu la ku def di jët jule day dóoree keleb leenu bon tey seenu fay ku rafet kii day ku def tiddi la wutal ngir yàlla tontu fépp fu mën a jëm ñun yaa nu doy ba nu jëm ngir yàlla fekk fi la wutal nu ngir yàlla tontu fépp fu mën a jëm ñun yaa nu doy ba nu jëm ngir yàlla fekk fi la ñaa ngi war àddina kay jaaba kay wut yi bambaa ngi dekk di wut yàlla ko wut ngërëmu ñaa ngi caaxaana kay soowal ko réerelu xew bambaa ngi sell la kay noppee ko xam suñu jëm ñun ñëpp lii tambalee kay làmbutoo ko fetal bambaa ngi gis lépp kay def jëf ji wër di ñu xam nit ñëpp a ngi waye dee kay wacc yiw atanut bambaa ngi way benn ci yiw teg ci yàlla bëtam nit ñëpp ngi wuti journal ak da jub langu nit bambaa ngi woy ci boroomam rekk jox ko mbiram nit ñëpp ngi diiri moy tey fekk daalaka moy bambaa ngi diiri ngërëm tey fekk daalaka jëm nit ñëpp ngi sooye kay ñàkkum ndawal ak i wal bambaa ngi jam faw tey am na ndaman ndawalam man maa ngi toppati gannaawam rabam lu mu jam ma daw faral ko mu may may lakku doon li ma jëm moo sàkku yàlla ba am moo daw baraw loolu bañ moo dàq ndam la ba jot seytaane dem na mu dem moo jiitu gaa yëpp moo raw ñëpp kenn du ko jot moo sang sangu ya moo di sang moo rëy ndam ñu ñëpp yal na mu may ak ndam ci ndam li mu yor ci yërmandee ma nga neenam lii di wéy te du yam ñu ñëpp yal na mu may war kañ mu lew mu lewet ak jàmm ak gudd fan ak ñëw tame te teg ci borom ñun ñëpp yàlla na ma may wërsëg wu lew wu lewet ak jàmm ak gudd fan ak wér te teg ko ngërëm naa tudd fii jaayi am ndam yiy waral xoola tooy ndax ñëpp xeen nee ni yiw xol ñëpp dund ja tooy naa tudd fii jaayi am ndam yiy waral xoola tooy ndax ñëpp xeen nee ni yiw xol ñëpp dund ja tooy koo ci ci ñoom yaram day mat te it péegëre mu fab lewet jàpp làmmiñ wax jaset du fa nooy doo dégg ñuy jëw nit doo seeru ñuy noru nit ñoo sell ñoo rafetu yar doo ca seeru ko fuy mboolem lu ñu nëbba kay feeñal ci yàlla la jëm seeni xol ak seeni fas-fas yëpp farañ ñu ko suy di kenn rekk ci jaay yi jar na juddu di dox di gonte kay fii ba dee foo xam ni kenn du la jooy yàlla nu jox na ca ñu ne jënd waaje te gën muy bamba jam na mu aw rab waaye tuuti nu sooy bu dul ko nag bamba mbooloo mépp alkuute bon fekkoon na nit ñépp bon fekkoon na diine ji yooy moo jàpp diine ji dundal boole nit ñi defar xamal ko nekk boroomam ñépp far defi kuy fu nekk teg na fa kuuyam jox ko xomtu bu doy kuuyam lu nekk bu nee yaayit ndeyam ñi ko góoy sëriñ bi kay nag bu maa suñ gaay xëy ni ñalas ba gàncaxu yàlla ji muy dox di jooy ak a booy gàncax gi nag moo di ñun ñi muy dalal suñu xel te xam ni moo tee ba tey muy dox di jooy ak a booy teewul ña xëy ni ñalas di mbër yi mag bu ñu rëy dañuy jotu ñëcc dem yóbboo te xol bu ne tooy teewul ña xëy ni ñalas di mbër yi mag bu ñu rëy dañuy jotu ñëcc dem yóbboo te xol bu ne tooy yaadaa yëfam yàlla ak yoneen ba ndam niru téet ku nekk ñu jox la boppam ak yëfam ñi fu téet yow yaa di lëf yaa jarit lëf yaa jaral ku ne lëf xawmas mu mën nag sa ndam mbooloo ni foofa su téet yow yaa di gerte gu ñor yaa di nawet bu rafet sag baax a tax ñi la xam naa yooxi cantu fa téet yaa man di yow yaa nu mandal yaa nu cës sa ngërëm te sàllu ndam lu foofa ndam lu xëy ni fa teet takkal ndigal muy ca kaw ànd ak ngërëm bi gërëm nga fas musal lu ci soof ak suufi ak lu ñu teet defal nga yàlla ci boppam lépp lëf lu ko saf yaa jot ndëgëm xàllu cantam yaa ko xëy ni fa teet defal nga yàlla ci boppam lépp lëf lu ko saf yaa jot ndëgëm xàllu cantam yaa ko xëy ni ko teet te yàlla ci nit ñi dong nga lay mën a fay ngir yaa ni bon di ci mboolem nit ñi ñëpp tuteet sa sang jox nga ko àqam jëpp jox na la it léppam te dëgg nga day yow doo ko nee si weteet musal ñun ci weteet ak xër ak ci la koy jur lépp yal na tawub santam te dëkk xefeet yaa sedd xol amul ab gàkk kenn gàkku la it gàkkoo ba boo réere woo la fi yaani lépp rafet jàngal mu xam njàng leenuy faj dara ka jariñ xam-xam bi nee ko ci mun léppan njariñ la suteet jaral nga yàlla lu nekk ak nit ñi yàlla yu lay jaral jaral ko ne ñàkk lëf jaral ko futeet sëriñ bi daana waral seytaane tekki ko daw yeneen bu tedd ba moo ñu lëf aas jaayu sëriñ bi daana waral seytaane tekki ko daw yeneen bu tedd ba moo ñu lëf aas jaayu yaa daa waral yàlla ay yeneen ba daanu tegal lor daanu wal bu njariñ nit ñi ba koy jaayu sëriñ bi daa tax malaaka yàlla yépp di jëkk di tudd yàlla ka sa baat ak samay jaayu yaa daa waral xaj yi suuf ak xaj yi kaw di gërëm yàlla ak yoomu te naa gi waaye jar jaayu yaa daa waral yàlla def loo xam ne def ci ko kon lu yàgg yàgg ndaxam yow rek ka jar jaayu yaa daa waral yàlla jàpp lar bu dee ci falan baaxal ko nit ñépp xëy doy loo ko muy jaayu yaa daa waral yàlla jéggal ab laram lu mu moy tabal labal ko faw bonam muy sant kay jaayu yaa daa waral yàlla jéggal ab laram lu mu muy nëbbal ko faw bonam muy sant koy jaayu yaa daa defal yàlla ci jaamam mu rëy lu ko saf ñu bokk sant la biir ak biti bay jaayu ñu ñëpp sant la ngir yow ñëpp dañ na fi yow ñu war ñu buur ak yaxe jëm ñëpp lay jaayu say soppe wute nañ suuf ngir ñu lee ngi gërëm ñu lee ngi waaru ñu lee ngay jooye koy jaayu jam-jam ngëñ nga jam seytaane rek a waral debee ko jaayu fi yow ñu moolu ñuy jaayu yaa daa bégal jaayu réy ñuy jaayu yal na mu lay bégal yow it fépp saa ngay muune koy jaayu ñekkat bi ñan mi negu canta ngërëm bu mu wër kafal ne bu gëm bu wër ca mu njëriñ bu wëraat wër moo fi nekk ñu ñu guyi xol yi mucc ayib muy santa koy wër a koy am ba mu nee ko wëraat umul bu nag bu rëkku bon ak bu xaama ci lu te ñun ñu fi yàqu faw ak luy waral defaraat defar mu faw defar goo xam ni kenn du gis gannaaw amat yàq yàqoo kat kayit di meraat gërëm mu faw gërëm loo xam ne lii ba bari yeewoo ca tur doo fi deeful gis mu xëy ko faraat te def mu gaayoo defar yoo fa defar fa diggal ñoom it ba dootu ayib ñu yee sa kay sawaraat te def ñu gaay yoo faral yoo may ndam ak pexe boo dul far gu sax dakk tabbeetee ba ñëpp faraat yaa daa isam isam mootal ndax sa gaay yi furu far laf ne daa for foraatus laf mu ñor ba ñoraat yaa nañ ñu nañ ñile door ak leekar ak gërëmal dóorub alas kala def waayam di ñëpp maraat yaa nañ ñu nañ ñile door ak leekar ak gërëmal dóorub xaras kala def waayam di ñëpp maraat koo seeru mar na la mar woo xam ne ñii bu dañee dangeen a jëkkee te yaajar démb tey nga jaraat yaajar mooy démb yaajar lépp lépp tayit doolam bu doo daana footo luy waree kawaraat yow raw nga waa démb raw waa tey te kenn du la jot yaa daw ba jot lépp fas daw raw ko war ko waraat yow raw nga waa démb raw waa tey te kenn du la jot yaa daw ba jot yépp fas daw raw ko war ko warat yaa denc yow ndaw sa fay kam daa gëroo ka jamoo muy togg kay yekk ngay mus leeka mus sooyoo yaa denc yow ndaw sa fay kam daa gëroo ka jamoo muy togg kay yekk ngay mus leeka mus sooyoo yàllaa ko fam mi la am yàllaa la fam mi ko am ngay sant moo sant naa sàmbaa nga naa booyoo yaa jékki-jékki ku jékkay jékki yal na nga sax ci jékki tey mus la ci jooyoo akub juuyoo gàncax gu sax nga gu am ndox yët datoo maraloo ñàkkoo mayit te mu lan ñax booyamoo booyoo am nag bu fatt bu laf duy bëtt mu këlawur war ngaa réew cant ngir xiifoo maroo yooyoo ki jàpp gii may guréy jébbal la yal na la may ngay sant cant guréy guy tax mu naa yooyo loo bëgg dikk na loo bañ daw na yegg nga yow ca digg dëng ña koo wenn ñu fuuyoo duuyoo ngërëm xanaa moo ndam xam ni woo sa njëriñ te teggu barke foo tolluy dere xullo yaa yanj yanjle dootoo fay la deefu la fay yaa mucc yal na nga raw su mboofe foo tooyoo yaa kii tëj na ni buntu lor bu jëm si ci yow lor doo ko fekk di ñëw faf ngeen itam diiyoo sa buntu njëkk nee na pellit benn ubbi ku far te kenn dootu ko tëj ni waa ngi nii sooyoo sa buntu njëkk nee na pellit benn ubbi ku far te kenn dootu ko tëj ni waa ngi nii sooyoo yaa xam te yaa am te yaa di tab xañoo ñi la moy xañoo ñi lay topp wëccoo kenn ñépp nga may yaa xam te yaa am te yaa di tab xañoo ñi la moy xañoo ñi lay topp wëccoo kenn ñépp nga may ñi may nga leeni ngërëm ñi may nga leeni dërëm ñi may nga leeni daraa ñi may nga leeni tubay xamal nga ñii lëf amee ñii lëf mënoo ñii ni lëf defal ñi les lëf wanas lëf ñii tegal ñi la xay xool nit ñi may ñi leen xel tàggatal ñu ne lëf tàggat ñi les lëf mayëf yar ñi tafal ñu ne way musal na ñi yow masal ñi saytu ñi téye ñi tàggat ci ñi sàmm ñi nag sàmm loo ñu la ci may jurab tabe ñi may xam-xam ak jëfe ñi may sag bëre ñi leen may ngor ñi fegal ñu le ne may yëf ñu del ñi may wulum ñi may texe ñi may lewet ñi ne may ñuy fit ñu yéemoo rëy may jàmm ñi xaw may tawféex ak daje ñi may ngir mu jur ñi ne may ñuy xol bu set daku lay mayug doy ak doylu ñi may ñuy ndamay jërëjëf mayug rafet ñi mayug saf ñi matal ñi ne may may gudd fan ñi may ngir ñi may coolo ñi may buntu ñi ubbi buntu ñi ñu sant di muy barke ñii ñii dafar nag seeni mujj rafetal te ñee ca fër del si yaawoo mal te aayu la may may gooma soone mayub lar may nu góogale may fegal na nag tubu nekkoon it ca góogale may guddee ci bëccëg lu ñuy jag ñoo rakuy nawetit mu dikk dàqal moroomam nii nga ajjana mel guddee ci bëccëg lu ñuy jag ñoo rakuy nawetit bu dikk dàqal moroomam nii nga ajjana ñu lu téye nii sedda ni xol baaxe nii jube nii luy dong dong na ko am luy dong dong na ko ma moo daa fexeeg pal ci buur ak mëru mucc ayib ba jot ca guugale pal faf jot ca wóole mo kuy dóor nit du fi jëm kuy daana it du fi jëm ku nabb ay bëgg fee jëm ñépp naa ko yemal ku bon ku yónneefu ay fii ñépp naa ko bañal ku jub ku yónneefu yiw fii ñépp naa ko demal koo xam ni yëpp ñunu aw ay yar na wuute déwén te yar moroomam yi déewul boole ñépp xamal koo xam ni yëpp ñunu njëg nit yal na fekk déwén ñu bokk fekke koo fekke jàmm am te amal koo gis ndaw ak benn ci laa daa dagaana ko wut mu jox ma far bex bi neex ak dagg naa ma ñu ma muy gas ñaxat lal si laa daa fexee kami bët ñu jàpp taaxa ki lal jubbal ma naa ma gëma seen ak ba nee kat yabar laa ngee jéema amit ñu jox ma mbooloo ki walkat naa ma yow xalma bu bëgg tubay dong laa daa ittee mu jafeñ ñu jox ma barkee ki dummal naa ma nag yërëma lor dem na dootu fi jëm nga ñëw na dootu fi jóg bu dee fi bañ jeena tàkk ñii la ajjana mel lor dem na dootu fi jëm di ñëw na dootu fi jóg mu dee fi bañ jeena tàkk ñii la ajjana ñëw saytaane moo bon bu seeroo am murid di dawal sangam ba bay bëgg am jaajëf mu yàqali ko saytaane moo bon bu seeroo am murid di dawal sangam ba bay bëgg am jaajëf mu yàqali ko murid bu dee jajji teemu gën ba ndox ma fi saw saytaane yàqum xelam njortam la bon mu ba ko dootul nangoo jajj dootul def lu jub du ko wax sangam ba faf suturaalal ko bonam yeewu ko lii tax baag yeewu ko yuutee ka baax ak a bon amaana dee fi yabal nit rekk ngir mere ko yabal bu la fu ruusuwul boo xam ni andi la kas ngaaral ci làmmiñ ak xol ñépp kay amu ko yabal bu tukkee ci ay canta ngërëm ñi jalañ ku nekk naa kañ mu am moo gën te kenn nigu ko amaana ngay gis ku ñuy woo bis yabal ko te kat moo war mu lëf mbaa mu wax as lëf te kenn yëgu ko gàccee ngi gàccee ngi nii mbooloo mi tollu te kenn du ci murit ban ba lii tax rekk kenn safu ko ngir gis ko nangoo defu jaamam te mel ni ku dee mu def la muy def ba sottal ci mbiram te ne ko ku nekk day wax a kay wax loo ko soññi ba tax muy dox di def ak a wax loo xam ne muy ñuru ko moo tax mu far noppi wér kuy rëbb ñépp di wax lu dul tegu fitalam te noppi far waru ko kuy gis bu koy gumba na ne yëg yaram te mu far ba seeni tun dal di wéy ñuy wéer kay alaku sëriñ bi ñam yi mu yor lay sàkk ndab lu ko def te wut na wut ndab la ñam yi yàlla dem gisu ko te donte jox nga ko junni junni yëpp du waral mu jox la nag moom bi sa ñëwee wétt far bàyyi ko te donte jox nga ko junni junni yëpp du waral mu jox la ñam yi sa ñëwee wétt far bàyyi ko lu dul mu wétt ñu dal ñetti rekk wi nii su muy kosol te fi laa mot ñam ngi dégg nga ko labam ba bëgg ci boppam lépp aaki ñoñam ak ñépp yal na ko am muy teewe santale ko danoo mënul la nga bëgg baax a tax ñu ba woon ñun ñépp kër bàyyatee nday dikk fekk si ko lu bon taxul kenn jóg kuy dox di def lu bon it saytaane mbër ma da koo mën waaye jubluwu ko ndax bamba far mu musal ndax bamba far mu jariñ ndax bamba far mu yërëm baaxal mu sangam ko bon gii ni bon bu mu tax nuy naa gu yërmande nag ab lar bu mànkee te sangam mat ñu mottali ko nan bokk sant te seenu jëm kawal lu rafet ab lar bu sangam kawee day mujj yëkkati ko amaana ñépp amu yiw dellu seeni barab ku nekk far mujj mel ni jant ñépp ja ko amaana lee koo fa gis muy wee murit bu mu gis amaana lee ko murit seeroo ci it tane ko alhamdulillahi mun noo xam sëriñ bu ñu doy bu nuy tegal lépp lëf noo xam lu bëgg lu ko tegal na mu ragg ak dee may nu dund ak ñu doy nu nu wën lis ku dul moom it bëggoon nañu ko tegal na mu ragg ak dee may nu dund ak ñu doy nu nu wën lis ku dul moom it bëggoon nañu ko moo sedd ab xol te dal am xel te buuri gëtit te doy sëriñ sépp ak yéefar yi kenn yóbbu ko cantam gu ànd ak ngërëm ak barke yal na nu dal te dal ku ñuy sopp ak koo xam ni topp na ko yal na xolam boole sedd ak tal li ñooy ñi ci nun ci sépp saate suñuy gëm far di sedd li ko moo def sëriñ dëgg moo di sang kenn gisagul kenn ci suuf si ne muy dox yàlla sumpalu ko yow kiy wutub sang jàppal bii mu sang la yow nga dal di seet fa wu tàggoo ko bonit sori ko suux ak sayaana ki déeg ak deq teextu la gën ku bëgg gën fekk géej ak def nga far jóge ko li tax sëriñ bi rawum xel nekk nay ati at ca diggi noonam te kenn nag len mu yàqalu ko póoséeruwul tey mu def ko sang jox ko mbiram lu far lu farlu du tee saytaane yàqali ko póoséeruwul tey mu def ko sang jox ko mbiram lu far lu farlu du tee saytaane yàqali ko biir wi nii dund tuuba réccu daalam war ngir ñàkk dëgg dara war am murit te tamit biir wi nii dund tuuba réccu daalam war ngir ñàkk dëgg dara war am murit te tamit koo xam ni fii dafa fa boppam joxub sëriñam ba noppi naa ko defal lii mbaa bàyyil waru na laa koy bu fa fitalam ak fuutaram xakiwal jox dam na duñ loo ko war waa ndey nelaw bari na koo xam ni kii mu ngi koy yootal di waaja fital muy sooba kay soññi xuuxuu yeewu koy jafe na ku yowu day soññi boppam sant ab sëriñ jébbal ko lépp lu muy def ci mbiram mu bana soññee ka yeetee ka yàkkamtee ka tànni warul ku dee si wam mat ba yi yow ba yi ware na ku génne boppam ci ñéppam mel ni jënni du dee muy sanga kay sanga kay jullee ka fab gañe na lefum murit yi yëpp a ngi mboolem ku bëgg a dawal na ñëw ci lef mi fa lef mii jëm asam sori na amaana ngay gis ku jóg di sóobu lef mii di daw ba ñëpp tàggu ko góoroo nee fi bana amaana ngay gis ku raw tey jiite gis ku ñu raw bu ëllëgee kañu daa raw ñee ci tey rawe na murit yi ñëpp a ngi raj raj ñoo ci leef ñii di daw yii saañu naa kii sa war ñii saañu naa tàyyi na ñuy dog dañoo bari ngir ak ñàkk dog nañ ngi ñi xam-xam ak alal ak mbooloo dogit bari na la dee ci sàkku ci man ak bépp taalu de nag ñu bokk mel ni ñu dee tey dund lii tawe na xol yépp bëgg ci ndigal cër yépp bëgg ci ndigal te kenn du bëgg aka bañ mbir maa ngi nii tëtë na murit ci lii lañu koy jiitoo ci lay rawe it su jëkk mel ni ne am loo xam ni am ko tëna murit ci lii lañu koy jiitoo ci lay rawe it su jëkk mel ni ne am loo xam ni am ko tëna sëriñ bi yàlla na may tuuba gënal melo yii te may nu ngir yàlla mbir mii nee fi am ko tëna sëriñ bi bokkoo ci say wax jëf la moo gën i wax te bépp wax joo waxul ay wax la maa la ko wax ma jël ma wax joo ma wax may dégg moo ma juróom sëriñ bu nekk ak jëfam kopp ak waxam jëm wax sa jëmm doy na ma wallis gépp jëmm ju am sa wax yi doy na ma wallis wax yu téere yi wax yow kenn yaa gën a doy mbooloo mi yaa gën a doy mboolem ña doy ñépp yaa wat ñay wax ak lañu wax loo xam ni nii mos nga koo wax yàlla def na ko ngir yow yaa ko daa topp akay jaamoo ko def lu mu wax mu yóom mu kos naf te wax kos naf ci nun lu mu saf mu sedd xol yépp dal xel yépp yaa ñor wax santal mu kos naf ci yow mii tax nu xam ko bu wër bay am ci moom yi nga neel ak jëf yu baax ak wax santal mu kos naf ci moom ak yow mi dem dayo ndax péeyam ba yow la ko wan mbéeyam la yow la ko wax lu man de am noo ngi lay yaakaar akay bégg nun yërëm nu làq nu yaa gën jëf yu baax ak wax yaa ëpp julli bu baax ak yër du ëpp tasab gën fopp koor ak aj ak dem jàkka lii ma ta wax yaa wér te yaa am lu wér yaa am lu sikk newul yaa am lu ay ndax newul yaa am lu suuxali wax yaa wóori dur wóori jëf yaa wóori wax yu may yaa may defal ci lu ñëw loo xam ni moo gën a wax yaa wóori biir wóori jëf yaa wóori wax wóori may yaa may defal ci lu ñëw loo xam ni am ko tama sa benn kaasu kafe daa dàq ab commissaire akub commandant nga kay folle ka sànq ka tëj sa benn kaasu kafe daa dàq ab commissaire akub commandant nga kay folle ka sànq ka tëj sulan lor woone tef nit benn rekk a fi daa booley lor ak tawat ak aajoo ki ragg di faj yaa daa defal nit ci benn tib njariñ lañu naw te doo ko tàbbali xalwaa kay dugal ci lu nit yaa daa musal nit ci lor fawit te doo ko joxub galen akub téere yaa ub yambi yàlla jakaj yaa daa tofal nit ndam ak mbooloo te xam ni xamul sax yan ni wen mu araf sag cant moo mata daj yaa daa faral nit yi bàkkaaram te doo ko sonal ubbul ko buntu njariñ teenum ndégam ni përëj yaa daa fa bit njariñu xam-xam dugal ko ci nit muy noori cantam yu dul yam fen lu mukk ka xaj yaa daa fa bit waa ji mel nit ëkk ubbi ko gis muy waari fuuree ka not buur ak dagam la ko teg lu jëm rëy li nga def tey jii la ngay xawa def bis pente koy ëpp gën koo yéemu yaa kay fut yaa boole noppaki gët yaa def lu jubu rafet lu buuru noppaki gët yaa teenu fay ni kamaj xam naa di ndam di nga ñaay ak barke tey alal ak xam-xam ndaxam yàlla sax léppam ci yow la ko aj yaa dig ajam gamu aj mboolem yëfam ya ko saf lu ñépp may ma ci yow yoolub ajam dañu aj buurub aras yaa di gaalam te ne lépp ci yow te gën sa lépp ci nun dàkkul nu luy taxa toj daara nu def nu sa ndab loo xam ni naf du ko toj te kum xelam neeti yar ras naf ci toj ko nga tëj daara nu def nu sa ndab loo xam ni naf du ko toj te kum xelam neeti yar ras naf ci toj ko nga tëj tey marsandiisum ngërëm maa ngi di wékkani xus ku bëgg jënd na indi njëg gu réy gu rafet tey marti nii suñ ngërëm maa ngi di wékkani xus ku bëgg jënd na andi njëg gu réy gu rafet te fàtte say bokk ak say soxla moo di sa gëm ak sopp yàlla te gëm koo gëm ba doomu nit ba xam ni yaakaari mboolem say xarit dana tas nga mujj far di jirim boo xam ni kenn du la fat nga noppi rek te naa yàllaa ngi gis ni ma ne te waxtu ko juboo mbir mii ma dal dama set bu yàlla wóoloo ni yow mii soppatoo lu ko moy te jàppatoo lu ko moy nii fam ngërëm du la yépp te yàlla joxati na boppam dëkk wii melo yit weesul dul yàlla tey wut yàlla moo mata wut la dee fi bëgg la dee fi muslu moo ko amit moo nuy dëgër gi mu may moo nuy fegal lu gënut ma bari ak yeete ngir ku yeeku daf du tayyi te donte daf dana yëg la fi yeete dootu ko mat sëriñ ba àgg na ñu moo def dana war a jóg te jox ko jur yi lay jëkku deete nee ngi màggat te perte moo di ka bokk ak bàmba ni jamono di dégg tey gis ba xëy dee nag te jébbul wut yal nañ ko yàlla tegal ak képp kun masa xam ak képp kun masa gis ak jépp doomi julit moo jaalu jar ne fi ak dex deeti dee ngeen mar ku luy di dal te xewul ay dal na waaju xamut man fet bi liy naxa saa it gëm te jébbul wut sun xel yi nay dala dal ngir bamba moo noo mat te xam ni kum jiite dootoo seeru luy nuru lor nan dëkk ak cant ngir am nan lu kenn amut moo xam ne yàlla te weexal ngir ma bam fi sa fis taaw ko aw lu ko kii sàkkal ko ndem du warut moo fekk kuy takki saakaañee ka takki doggal mu jàpp seexal ba nuy gis muy jubal ngir nit du reeki foq ak mbal bopp moo ko xeyul xam gaa ya daa watu yi jox leen di kees ak yat di topp yàlla te jantoo loola moo ko xewal moo tax ba koo gis mu am xam-xam bu rëy te jàngut moo dàq mooy yàlla andi topp ñépp di gis man ki ma gën moo ma sut moo sut ku sut kama sut ñi tax ma topp ko ngir nit fum ko gis ku ko gën ma jóg te topp ko daw ab at te day taxaxat jox naa ko saa mbir te fas naa yéene ñal ni ko dee du man di bàkkoo ka woote bër du man di tabit maa ngi di sàkkoo defub jaamam aku muritam man loolu doy na ma ngir jaamam ba dee fu ko not saaxel mi dal na te man ñuy sax lu may rëtati ku am diggaale bu mel nii kooka yëllu te rët ku bon te xam ku la baaxal lee nga jot ku la raw ku raw te dee fu la xontit lee nga am yaramit ku bëgg daanay moroomam ngay farak bërekat ku bëgg dàq moroomam ngay farak xarakat man bu ma leewoo ka songantee ka wax ni isit def naa la saa mbër ku may sóoróoti nee ko furit watuma saa bopp ak mboolem ku laa ufi man te wattu mboolem ku lay yaakaar akay digéet waral yi si mbir yi yow yaa xam na ngay yore mbir musal mu faw wute yor loo yor ba dootum rot yàllaa la wóolu bindeefam yépp wóolu la it ku yàlla wóolu ku koy wóoloo di kooti yëbut defal la ab sàmm benn yeew a koy wutali akay jëfal te ku dul yow bu mu sàmm ci kët fexal suñuy fante barkeelal suñuy jëfitam xajiw iblis ak yi gaayam te may nu jëfët fexal suñuy fante barkeelal suñuy jëfitam xajiw iblis ak yi gaayam te may nu mébét mboolem lu nuy wax a kay def lépp nay sa ngërëm ak jikko jum jikkoo ak lépp lu nuy di fasit bu wute am suñu diggante te foo mën a ne ak fépp fan ma ne ne def nañ la tànk fi gët xabaral sa jëmm ji ak suñ jëmm yi jaxase ba xam ni kenn du ñu xàmmee te ka xajjale it feesal mu ak sa ngërëm ak lépp loolu tànnal yow loo gërëm rek a gën loo tànn rek a rafet feesal mu ak sa ngërëm ak lépp loolu tànnal yow loo gërëm rek a gën loo tànn rek a rafet ban baa di dagg jaabteen ak dexeeg ji aburu yi tey ngeen ji daar ak saxaar ak waane yàlla na fi teer ban baa di dagg jaabteen ak dexeeg ji aburu yi tey ngeen ji daar ak saxaar ak waame yàlla na fi teer moo tedd yàlla na mu di gaaram bu tedd bu muy dexee te teewee ka yebbee faw cant ki leer te yàlla na mu ngeen jaabteenam akub dexam ak daggay ndegam di jawub cantam bu leer ni weer jaag saxaaram di waame nooram ak nawetam muy dolli képp ku xam tey gindi képp ku réer yamañ ne taw ne ne wettam woon yëfam mu lew lu bam man yëfam muy sant cant gu seer xabum karaama mu rëy moo xam ni miin ku ko jax xol dal di sedd ni neexal xol wi añ ak reer jaxat bi yal na ko jax jax guy waral nu gërëm tey sant cant gu lottal ñeeñu lottalu géer jaxat bi yal na ko jax xaj yépp xëy ni rajax te seeni bopp torox am gàcce dee mu si yer jaxat bi yal na ko ñu ngal jax ko jax ngërëmam sexal nu seexal ñu nuy gën fukk sàmbali ngéer buurub arab yal na jaxambam ba ngay taxa sax ci cant faw wañu ci xam mbooloo mu jub mu jeer buurub arab yal na jaxambam ba ngay taxa sax ci cant faw wag ci am mbooloo mu jub mu jeer moom ak sëriñ Bamba ak yoneen ba fépp fu nuy jëkkeeti yal na ñu fay yegseeki cantakateer ma way kañ daayu xoo kanaa bu mu raw mu far taxaw ba ñu ñëw na wër ko kapp mu dàq leen ma way kañ daayu xoo kanaa bu mu raw mu far taxaw ba ñu ñëw na wër ko kapp mu dàq leen ñu bokk ni fëccët gën na jam seeni xel bii bu wët wëti muy xeñ seeni tànk ba jàpp leen fa dañ ñépp jiital benn ñuy niru ay warax mësëb leen ñu yéewee muy yëfam yépp nat na leen ku tuur takku rëy koo dégg ci kaamari ku tey ku saf safe ay saf leen a saf ndax ñu wallu leen ku tuuta kuréy koo dégg cëf kaama rekk tey ku saf safe ay saf leen a saf ndax ñu wallu leen ku mokk mu jox koy gaayi mokk ku jàgg nag mu jox ko ñu ñan ñi daj ngirub jàgg mokk leen li ñuy dox di tiisoo noo ko def bu ñu puugu woon te dal jubal am gaayi nooye ni mbajj leen mat yi bi sanoon may mën te rek ci ko rek ci naa lu bon ñu ma daa def lépp bokk yi seeru leen sëriñ bi faral may yépp far gu rafet gu wër deful may yi ful gëm yépp gaa yépp dal leen na daara yi ak kër yépp fees ak nit ñu jub ñu sax ci ndigal tey sant faw ñu sant leen na daara yi ak kër yépp fees ak nit ñu jub ñu sax ci ndigal tey sant faw ñu sant leen na xeppan ndox ak xaalis ni gañ ñu ngërëm te sax suñu suñu digg yow ni nañ ñu sant leen nga jàmm ñu jàmm ak ñépp xel yépp bokk dal te xol yépp booloo sedd fan nga fekk leen dugal ñu ci barrièreum ngërëm boole noo ci ndëkk te dàkku ñu ñuy bañ faw bañ yépp dàq leen dugal ñu ci barrièreum ngërëm boole noo ci ndëkk te dàkku ñu ñuy bañ faw bañ yépp dàq leen wala yi romb tey jii jëm ci kenn lu muy wuti xanaa dof nde yow yaa saytu mboolem lu muy wuti wala yi romb tey jii jëm ci kenn lu muy wuti xanaa dof nde yow yaa saytu mboolem lu muy wuti ku yow te baaxum xel dalay sant yam ci yow te jox lay biram ndax yow ku jóg yaa ko yëkkati yësal naa fi yow bég naa ci yow jekki naa fi yow te doy nga ma doy loo naa la nee naa la nikkati laxat naa la man ab tànk ndax te lu man bi am ku tàggoowu lay yow mbàkke dee fu ko damm te ku bëggul lu dul gàllaaja ku yiw na ñëpp ci yow ku lay bàyyi ñàkku yiw ku jóg faf ko loqati ku bëgg ni kekk ak doole faw na way ci yow ku way ci yow ak loo digli laf du ko déqati dangay fab ko suufee suufe sànni ca kaw li kaw ni cas waa ji ñu not may ko ndim nang ba muy note te foo gis ku mbooloo nit jiitu ngirut bonam nga jàpp ko baaxal may ko it te mu xëy jote dangay jàpp xëy bon soppi ndër jàpp waaju bon defar ba mu jag nee faaxanaa kii du moomati ku bon na la xam koo xam ni bëgg na may guréy na tallal nga tekkee junni ak gaayu yeesati damaa xam li may wax ndax ba may ñëw ku gàtt laa ku yeesii kemam tey maa ngi gudd ba faf sute bisal na ci gémmiñ def mu faw sa tooli ndég mu nangu ñu dul jee ndax mu am mu mu may wute bisal na ci gémmiñ def mu faw sa tooli ndég mu nangu ñu dul jee ndax mu am mu mu may wute sëriñ bi xees na la raw dootoo ko see naka jot ko dox sa digg ak lu bon dootoo ko see naka jot sëriñ bi xees na la raw dootoo ko see naka jot ko dox sa digg ak lu bon dootoo ko see naka jot moo dox sa digg ak lu naaj ak ñàkk ak sawara ak mooy ak réer ak ak mbuur ak mu dee fi tawat te loo ko dab dabaku cant ak mbiram du waral la xaaja jot asakay akam jëmu këti kët sëriñ ba fis na la raw yoneen ba fis na ko raw yoneen ba it nag boroomam xis ko raw bu rafet yoneen ba nee na boroomam dan ngir nar a def ci cant loo xam ne lii xiiwal gi dootu ko wat ba def na cant bu lottal ñépp teeg ca ngërëm xiiwal ga suuxal la ba na cantam ga dellu ko nag sëriñ ba it ñëw ni yoneen baate dan na fasoo koo sant cant bu suuxal xiiwalam ga mu fat ba def na cant bu suuxal géej géej ak i dex xiiwal ga wan na tërax cantam ga dellu ko sut yàllaa nga jiitu di wéy yoneen ba sës ca ñu teg sëriñ ba topp te teg toppal ci ñoom ak fit seetal sa bopp ci ñoom ndax nga dolli ku lëf ci yow xam ci sa bopp lëf ku yow di nit saxal ci jéem yi ak def jéema lay taxaman lëf lu man bul bàyyeetee jéema baax a kaset koo xam ni xis na la baaxal lépp loo ko defal ci aw yi du payam yeexal la doon xarit ku dox sa digg ki lor faf boole laake njariñ sab sanga xis na la raw dootoo ko seeni ko jot ku dox sa digg ki lor faf boole laake njariñ sab sanga xis na la raw dootoo ko seeni ko jot sëriñ bi yaanu fayal taalab tawat ba mu fay burul ko nañ yow lu bon am tey gërëm naa la sëriñ bi yaanu fayal taalab tawat ba mu fay burul ko nañ yow lu bon am tey gërëm naa la seytaane tuuti ñu béy ñépp tuuti ñu rët yaatee nu béy yaanu teep man gërëm la yow dom la tee ñu wëree luy jomm jomm di wëy bu jomm lee te wutas lëf man gërëm naa la yow rekk a tee ñu roo kay jamp jampi duuy di tappalee kana xee kay lef gërëm naa la yow rekk a tee ñu roo kay jamp jampi duuy di tappalee kana xee kay lef gërëm naa la ay waa ngi daj kapp mboolem nit ñi teggi nu ñun yaa tax mu teggi nu moo tax man gërëm naa la fu nee ngi rab rag ngir xiif ak ragal ndare yow te yaanu tee boole xiif ak rëg gërëm naa la man may nganum dund ak dundit bu doy bu rafet te may nganum ndox mu doy jaajëf gërëm naa la man fam nga mboolem ni ñuy wut teg ci saa yoo xëy yi faf def ma sab loxo man nii tey gërëm naa la manam nga maa bañ a may ak yëg te sànni ma fee te def ma faf nit mu dund man gërëm naa la man say tuur sa njariñ man say tuur sa lorit yaa may jariñ bi ma dàqal lor gërëm naa la gisoo ci man sa njariñ séenoo ci man sa lorit te jublu maa ci njariñ yow kay gërëm naa la fagul nga ni may yu doy faf ñu ñet bu ñu daj alhamdulillahi seexoo man gërëm naa la fagul nga ni may yu doy faf ñu ñet bu ñu daj alhamdulillahi seexoo man gërëm naa la dinax nga lor ba mu dem woon nag njariñ ba mu ñëw yaa faj la rog aajo jaajëf yaa defar gaaña yaa rabbi bii jang ba bal angem bu jox mu tubay ambub bi can tuy jot jang yaa xorom gaaña yaa fopp wanta mu set yaa sippiti sa ku ay falang tawat ñedd njummal doo bañu gaaña yaa dàq ñàkk farum baa doo la tey ñooñu bañ ñi xërrutus kare muy wéy yaa dëggal gaaña yow yaa yesam garab bu mbég lépp tàbbi te ñor xomas ku nekk di for mbég suufu gaaña yaa teggi gàcce wasal ndaw wàcce barke bu sax mu wenti koo seeru yaa la biire yow gaaña yaa làq ñépp ñu raw yaa soññ ñépp ñuy yaa xëpp ñépp dërëm yow rekk roy gaaña yaa mucc yaa mus ne yaa gën foppi baay ak ndey yaa gën na jaay ak maamit yaa gën na gaaña yàllaa la fab teg ca kaw mbooloo mu tedd ma yow yawit nga boole moo fam mun teg ca kaw gaaña yaa xëy ni yem mu ci tawféex ak ngërëm ñi ko cas mu xëy ni yem mu ci yow mu farlu gën gaaña rusloo nga ñépp toroxloo ñépp ngir ni nga mel ku nee ngi saf bukki ngir yow doo kalub gaaña sa xol rafet na sa jëf jëppit rafet nga rafet rabuuruyu amu yiw yaajal ndawus gaaña sa xol rafet na sa jëf jëppit rafet nga rafet rabuuruyu amu yiw yaajal ndawas gaaña yaa ba ñu jàjji di yow yaa ba ñu jàjji bu ne yaa yokk daara ji yaa yokk daara ju ne wutal nga ni mboxati dàggaaki doon ngay jub jaaraama far nga waroon nar fañ nga aaja ju ne guddal nga fan yi falan lor yépp feñ nga ñu bañ faf jox ni naataange sab kenn xoomu mën fu mu ne koo gis ma ngay naata kay am jàmm nag teene tax yaa mos la àjjana jëkkub deete dur na ku ne yaram yi wér na suñuy xol sedd nekkuñ naf wétal yi doy na suñuy jur jum làq wu ne yaa di sëriñ yaa di bàyyi ndey di fajkatu lor yal nañ fi yàgg ñu far déggoo te bokk fu ne mënee fu laa ñàkk yaa di ndox di nee di dugub yal nga am faw am sa cant yegg fu ne mënee fu laa ñàkk yaa di noo di ndox di dugub yal nan la am faw am sa cant yegg fu ne noppal nga ñëpp fu nit jëm tey wataa nga fa jëm te pont it jëfewul yaaram di mën ngalu ne yaayum di yombal njariñ jaajëf defar nga sa mbir defar mbirum ñëpp yaa gën fukk jëmmi ñu ne yow kenn yaa gën mbooloo ëpp leenu njariñ gën leen a noppule man leenit ci lépp lu ne rooful ci nun faral ak ñun faw def mu sa mbër mu rëy mu am nag mu suuxal mbër yu mag yu gën a roofal ci ñun sa ngërëm ak yar bu rëy bu rafet te may ni it daara ji yokkoo ko ëpp ju ne roofal ci ñun sa ngërëm ak yar bu rëy bu rafet te may ni it daara ji yokkoo ko ëpp ju ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin